88 628 89 90 tës mën ngeen woote ngeen jot ñu ngeen ñàkk ñoo jot waxtu bu nekk mën nañ leen a tànn daat leen di may xaru tabaski moo xam tës moo xam Zik Feeling moo xam jëm kanam ñii ñëpp nag ay auditeurs u Zik FM lañ dañoo tànn seen ay numéro may leen xaru tabaski di leen ñaanal tabaski jàmm ak salaam ak Zik FM. tabaski jotee waaw ba nu ren xar yoo ba ñëpp ñaanal la weddi nag gis bokk ci ñoo leen ko diggoon defal na leen ko dégg ngeen ko ci rajo spot rajo yi gis ngeen ko ci spot mhm. télé yi waa Zik FM foo leen munti woote rek sa ce soit Zik Feeling Teus gis nga roxee jan jëm kanam yëpp daal di leen leen teral mhm. moom daal mi ngi noonu te it seen i xar yéen ko moom nax li ñuy wax rek kii wax ka kay déglooy xaritam mhm. ba tax na daal yéen a safoo Zik FM moo wax taxit delloo na leen njëkkal bu baax a baax xar yi baax na de waaw ma xar yi baax na de ah yuu